asalaamaaleykum mbooloo mi waa senegal maa ngi leen di nuyu di leen ziar aw ma nag nit amul lu dul mbokkam te jullit amul lu dul mbokkam lu mu nekk nii daal xale bi laa yor maa ko jur ci fatra ak yàlla ak sunna Muhammad dama bëggoon nag ndimbal laay ñaan sama li ma yoroon yëpp def naa ko ci wax li ma yoroon yëpp def naa ko ci damay ñaan ñi ñu jiite ëpp ñu doole te yàlla rek tax ñu jàppale ñu te yàlla rek tax xale bi nag boo li ma li ma gënal li ma gënal dëggantaan mooy mu wis mooy li ma gën a wér mooy li ma gën a bëgg jaat sama dama demoon nag 2017 dama ko yóbboon ci benn internat bu ñuy wax juuf fële na nekk yëmbal bi ma fa demee moom daal moom ma jékki-jékki woo ma ci téléphone ne ma sa doom ji gisatul boobu c'était en 2017 2017 ma woo yaayam na ko léegi demal jëlee xale bi xale bi doom ji nee na gis wérul ba ma njëkkee IHO lañ ma njëkk a dem naa IHO ñu yóbbu ma kiiwu jam ñaajo bi ma jóge jam ñaajo ñëw yobu ma Abass Ndao andi yóbbu ma Abass Ndao ma dem Dantec ñu hospitalisé ko ko scanner yu nekk def naa ko la ma yoroo néew def naa ko ci wax dëgg yàlla mais yàlla daal moo affaire bi doxagul quoi maa ngi ñaan nag ndimbal ku ci mën dara te ku ci def ba ñu xàmmele dal na la yàlla jàppale taxawu la taxawu suñu mbokk mboolem ngeen bi jaay fi sallallahu taala kañ nga remarqué li nga xamante ne mooy feebar bi euh, ko dal kañ la ko dal daal la ko dal 2017 waaw 2017 moom ba léegi boobu moom ci ay six ans sept ans six mm-hmm. Mm-hmm. waaw boo am na six ans sept ans wax dëgg yàlla boobu dara dalu ko woon. tey lan nga ñaan ci li nga xamante ne tey mooy li ma daaw li ma ñaan daal mooy li ma gën a bëgg sama àdduna bi mu nekk nii mooy mu wér quoi mu xool dégg nga loolu moom daal moom mooy li ma suy bi ma gën a taxawal. aw ma nag aw ma nag aw ma nag dara mais maa ngi ñaan yàlla wax dëgg yàlla mu wér quoi parce que aw moom dong. moom moom mooy sa taaw waaw. dëgg la dëgg yàlla nag sa waay. te nag wax dëgg ku baax la nag ci man nag wax dëgg yàlla amul doole waaye gis nga ba ma affaire bi xamee jaxale tuuti sax day téye raay sama bopp nii naan ma sa waay yaay du dara. papa mhm. lii du dara yaay lii du dara. damay téye sama bopp musu yàlla xam ne ne mhm. musu ko métti. musu ko méttiwul bon xool damay toog sax di ko seetlu ni mhm. individuel waaye musu ko méttiwul mhm. ah ma ne ko nag comme yàlla na ko tural lu wàllu quoi sëñ si mhm. wax dégg nañ que ni def nga maanaam tour des hôpitaux. waaw euh, tey si biir hôpital yooyu nga dem. ndax ñoom wax nañ leen mbir mi moo sabab li tax moom gisatul wala déet. en tout cas ba ma jëkkee dem Yaasho dañ ma yóbbu fële ah Diamniadio yóbbu ma jam ñaar yóbbu benn professeur mu yóbbu ma Abass bu ma demee Abass Ndao benn femme moomu yóbbu Dantec bu ma demee Dantec ñoom tamit boo man na yaakaaroon naa dana ko gis na parce que jëndaloon nañ ma bi ma defee bi ma defee scanner yeeg yooyu yëpp yooyu yëpp dernier ba mu fay mujj jóge jëndaloon nañ ma ay gants ay alcool pour opération bi quoi mais nag mujjul mujjul nekk quoi opération mujjul nekk parce que après dañoo andi ma benn facture cent soixante et quelques mille te boobu joxewoon naa xaalis avant may ñëw joxewoon naa ko xaalis tey li ma defoon ci scanner bi cent soixante cinq cent soixante cinq millions mhm. pour opération bi bon wax dëgg yàlla boobu mënatuma yorutuma dërëm dërëm dërëm dërëm dërëm dërëm loolu la woon quoi. mais dañ la wax ne dañ ko waroon opéré. dañ ko jëndaloon nañ ma ay gaa ak alcool yëpp ak yaa ngi bii sax ba léegi jëndaloon nañ ma yëpp ne dañ koy opéré mais après andil ma benn facture cent soixante et quelques mille te boobu yàlla xam ne jugee naa ko jeexal naa amatuma mënatuma loolu daal moo tax daal man daal kon nañ dem daal xaar yàlla foofu. d'accord ndax ñoom jox nañ la yaakaar bu ne buñ ko opéré. dina wér waaw waxoon nañ ma ko ah waxoon nañ ma ko bokk parce que buñ ma ko buñ ma ko waxoon waxoon opéré duñ ma dama génn ci ak pharmacie boobu jënd ay gants jënd ay gel jënd ay ki yu bëree bëri kooku jox leen ba ñu ba ñu programme woon jour ko war a kii après boobu bu ñu ko programmé nag la ñu andi benn facture cent et quelque cent soixante mille bon man boobu wax dëgg yàlla boobu jàddiram sax daal moo tax ma génnaat boobu waaw. moom ba euh, nii pour kii. après daal wax dëgg yàlla démarche suñu borom rek laa ko moom nag moom nag wax dëgg yàlla mosu ko métti du benn te bu ma demee sax bari waxoon ne ne moom laay calculé te jël boppam di ma raay nii sama bopp ma Salick Salick accord tey Sénégal bari na ay bonne volonté. waaw eh, comme dama lay bàyyi sa sago. tey boo amoon ñoo xamante ni am nga yaakaar si ñoom. ngir ñaan ñëw taxaw ki nga xamante moo di Babacar di sa taw. waaw eh, si ñan ngay tàllal sa loxo rek ngir ñu ñëw. jàppale bon premier nag comme président Macky Sall lañ di ko wax. Hmm. président Macky Sall moom moo yor réew mi moom mooy suñu président moom la fi yàlla teg moom laay njëkk ñaan. ndimbal ak soxnaam ak Wally Seck dégg nga ak bugan Gueye Dany lépp ay ay ñoom monsieur Amar ñoom ñëpp xew ma ci kenn yal na leen yàlla taxaw jàppale leen bañ dimbali ma jàppale sama doom tuuti si euh, kii Babacar ba xam moom da doon jàng ak lan lan lan la doon def dama ko yóbboon ci benn internat maa ngi doon fay vingt cinq mille francs par weer durant trois ans ma chaque weer musuma traité vingt cinq mille francs laa ko doon fayal par weer mais man daal bi ma waaji woo dama ko fay comme comme mardi laa ko fay maa ngi koy rappelé jeudi mu woo ma ne ma xale bi dafa gisatul quoi moom nag boobu ba léegi wax dëgg yàlla defu ci benn defu ci benn benn kii quoi su ma dëggante ak yàlla rek ma lay wax. defu ci benn jur bi la jur bi la gis ko ak man kañ si waay fi mu nekk après après sama mbokk yi dañ ma woo téléphone pour ma wàcc moo wàcc liggéey dama bàyyi liggéey bi sax wàcc ñëw. Hmm. bi ma ñëwee fekk ko fii bi daal di ko mel ni yàgg lañ ma dóor. duñ laay def pour daal dama sànn complètement xam nga nag yàlla ngay bàyyi la yëpp quoi. Ah, euh, mm-hmm. moom mooy waajuram bu bu ñu ko yëgee moom ak tamit man biñ may woo téléphone service mm-hmm. man dama ko woo téléphone réaction am nag après kii mais ba tey moom nag ku maandu la dëgër na saalitul benn yoon bon moom da ngay waaru quoi moom wax dëgg yàlla amul benn lu mu ci mere lu quoi kon da ngeen ku leen jàppale pour ñu mën doom ji daal bu ko dem daal moom bu soobee yàlla lu ñu am ak ñu mën nañ la ñaanal ci yàlla bépp bépp bépp yaakaar boo bu ñu am ci yow yàlla na ko na ko yow mi ñuy dimbali nag yàlla na la yàlla xa yàlla li nekk sa xel yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal. lii lii daal Babacar ni mën na wér mais manque de moyen moo tax voilà man man loolu laa gis quoi hmm. manque de moyen moo tax man loolu laa gis quoi man loolu laa gis xale la bon yàlla daal moo kii quoi man daal vraiment mën na wér quoi yaakaar naa daal ku ko dimbali daal dana dem daal waaw asalaamaaleykum àdduna comme li ngeen gis li ko papa Babacar li mu wax léegi-léegi ci li nga xamante ne mooy feer bi dal ki nga xamante ne mooy Babacar fekk mu nekk feer boo xamante ne ni tey xale la Euh, feer bu feer bu feer bu métti moo dab ko mooy li nga xamante ne mooy euh, gumba mooy mm-hmm. feeru ñàkk bañ gis mm-hmm. moo dal xale bi nga xamante ne mooy Babacar mm-hmm. tey di si woo tamit ñëpp ñoo xamante ne tey maanaam dañuy dox si social di jàppale doomu aadama yi rek te yàlla tax di woo ñëpp ñëw dimbali xale bi nga xamante ne tey mooy Babacar parce que gis nañ ci tamit fan yee passé amoon nañ cas bu mel ni ci ki nga xamante ne tey mm. mooy Tunisie mm. gis nañ tamit am na ay tan bari yoo xamante am na ci mm. di ci woon ku ci mel ne suñu papa Iran Ndaw gis dox ci li a baax la dara ci ci réew mi pour nga ñëw jàppale xale bi mooy mooy Babacar parce xale la boo xamante ne mën naa ne mooy avenir baayam parce mooy taw ci papaam moom tamit parce que nga am doom bu yaakaar ko tey ak jamono lu mu yàlla dogal li nga xamante ne mooy feebar daal koy dab muy li nga xamante ne tey mooy ay bët ay ñàkk bët nekk loo xamante ne métti la loo xamante ne bu loo juddwaale sax mën nañu da koo juddwaale mais loolu dem ba dab ndaw hmm. muy lu métti loo xamante ne lu triste la di si woo ñëpp nag di si woo ñëpp di si woo ñëpp waaw di si woo ñëpp di si ku si mel ne soxna Aida Diallo tamit di ko ci woo bu baax a baax hmm. soxna Aida Diallo ñu ngi ko ci woo waaw mu ñëw tamit jàpp ci li nga xamante ne mooy xale xale bi nga xamante ne moom tamit ndawam la doom la di si woo tamit madame Faye Sall hmm. waa première dame am na kenn koo xamante ni tamit tey sa ndaw la lu mel ni dab na ko dab na ko muy Babacar. Mhm. Babacar tey lan ngay wax tey ci li nga xamante mooy li la dal nii. Mhm. doon jàng. Mhm. après ñu door ma buntu. après fan. ñu woo sama papa. wax ko maati. dañu wax gisatuma. maati la fay xaasi. warzadi mhm. na kiruma abin yau ma obitar suwa homa abin yau ma da jami'ar abin yau ma dem abat now abin yau ma dem dandik yau ma bo obitar bu topu si jami'ar ñoo ñu dem foofu ñoo dañ ne affaire ñu ne affaire ñu jënd xanaa sama papa ñu àndoon dem ci ñu ko ñu ñëw mu ne léegi ma opéré mënuñu yow euh, lan nga lan nga doon yëg euh, moment boobu nga toll tey ba tey nga gis nga doon gis jëkki gisatoo te lan ngay yëg tey ma yëg mhm. ma ñaan yàlla mhm. ma gis ma jàppale samay waajur jooy yow Babacar eh bu jooy way yow eh kaay xoolal eh dina gis kaay xoolal kaay attention Babacar eh eh eh dina gis dina gis dinañ la yóbbu tonton am dinañ la yóbbu dinañ la faj dina gis kaay Tonton Abdul eh noppi toogal tonton Abdul la yóbbu wala tonton Abdul la yóbbu dégg nga fan yii dégg nga waxal waaw xanaa duma sa xarit waaye eh noppi noppi waaye noppi waaye noppi eh noppi noppi su ma jooyee danga yokk bu ma jooyee ba pare dégg nga waaye noppi waa noppi waa noppi Babacar noppil noppi noppi noppi noppi xanaa gisoo tonton Abdul tamit noppil jaan di nga wér incha allah rabbi incha allah kon fa am dina yóbbu di nga wér dina yóbbu léegi boo wéree lan nga bëgg waaw waxal ñu boo wéree lan nga bëgg eh waxal tonton am dana yóbbu Babacar noppi di nga wér noppi noppi di nga wér boo wéree lan nga bëgg tonton am bu defal la ko noppi waxal bëgg am kër ah bëgg am sama kër am sama oto kër sa kër ak sa oto waaw di nga ko am incha allah ak après lan di nga wér après nga ut lan am sama étage ah sa étage. waaw yàlla baax na. di ko am incha ngeen jëf faam mbokk yi ñu ngi jégalu xam nga dafa nekk loo xam ne lu daw yaram la lu metti la xam nga xale bi gis ngeen si kàddu yi mu wax su ma soñoon damay wér ba dimbali ki nga xamante ne mooy sama waajur bu góor mun naa ne donc ko ñun ñëpp ku nekk sa objectif loolu la sa yéene loolu la ñun ñëpp tey ku nekk am nga yéene tey pour maanaam dimbali sa waajur bu góor Babacar maanaam loolu la. nekk li nga xamante ne li wax waaw nekk lu daw yaram di ñaan tamit ci autorité yëpp nag di ñaan ñëpp nañu def li seen combat ñu dimbali xale bi te yàlla tax di ko ñaan tamit ci barke turandoom di ko ñaan tamit tey si njiituram di ko ñaan tamit fépp fu doomu adama nekk di ko ñaan ñu dimbali xale bi rek te yàlla tax ñu jëlal ñu ko en charge ñu fajal ñu ko te ya yàlla tax soxlawuñu dara soxlawuñu ceeb soxlawuñu diru soxlawuñu dara ku ñu fajal Babacar mi rek mu gis la soxla ñun. di si woo tamit nag ku ci mel ne soq day dox si action yi mel nii soq gis nañ sa taxawaay bi nga def si ki nga xamante ne tey mooy Baye ak sa taxawaay bi nga def tey ci li nga xamante ne tey yu bari yam def nga ko soq ñu ngi si woo bu baax a baax man abu man sawaay waay man waay woo ci combat bii nii. sox bëgg naa nga taxawal ñu si combat bi bu baax a baax a baax ba xale bi nga xamante ne mooy Babacar mu jotaal li nga xamante ay bëtam di jégalu tamit nag mbokk yi bu baax parce que mooy maanaam xéwal ñu fi tuur léegi léegi nekk loolu dafa daw yaram. dafa daw yaram di sant ñi nga xam ne ñoo fi ñëw di sant waa Actubuzz ah, di sant waa Wonema ak waa Dakar Midi yéen ñi nga xamante ne journalistes yi fi ñëw pour jël Babacar pour dimbali ko ci li nga xamante ne mooy li ko dal parce que ne yàlla leen yàlla fay maanaam taxawaay bi ngeen ci taxaw yéene bi ngeen ci am tamit yàlla leen ko yàlla defal bu baax a baax kàddu yi daal fi lañ ko war a mën a yemal rek parce que xooli fi mu ne nii fees na daal mhm. mënut ñoo continuer xaa ñu bàyyi yaayam mhm. a

saa yu ko soobee mën na ko teggi yàlla nañ ko yàlla teggil ci barke Seydina Mouhamed maa ngi ñaan volontaire yëpp papa Iran Ndaw bàyyi ma Bougane Gueye bàyyi ma président Macky Sall ak soxnaam bàyyiwu ma soq bàyyiwu ma kenn bàyyiwu ma aji gumbe ancien jabaru ndongoloo bàyyiwu ma kenn ko xam ne mën nga ma dimbali ci sama doom ji mu wér laaju xaas laaju ma dara ñu fajal ma ko rek mu wér loolu laa bëgg ci barke Seydina Mohamed sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp surtout waa Fass Mbao su ma limee damay juum di sant abu mii ma ne ko di sant abu mii gannaaw yàlla lépp moom la dama koy bàyyeeg yàlla dama koy bàyyeeg suñu borom li nga bëgg sa xool abu yaa ko xam yàlla na ko yàlla defool ci barke Seydina Mohamed yàlla laa la bàyyal yàlla laa la kalaamel ak sa équipe bi yëpp ma ne ko yàlla laa la kalaamel ndax lii nga def mënoon nga ko bañ a def te boo ko deful woon tam dara du la ci fekk waaye kër bi ñu dajee ci oto ba nga gis ba Babacar da nga choqué wu ba ma xam ne que ni da nga choqué wu wóor na yàlla yoon ba ma ñëwee laa ko sama borom kër na ko am na ku ma dajeel waaye bu ni mu ni ma gisee mu defee rek am naa ci moom yaakaar waaye yàlla bu yàlla tas yaakaar numéro tey jii ku ma soxla woon moom Babacar daa mel ni këru jox ko numéro bi jox ko waxal 791. 791. 52. 52. 62. 71. 62. 62 waaw. waxaat ko Babacar. wax waxaat. 77. 77. 791. 791. 52. 52. 62. 62. numéro papaam joxe sa ba su papa. 77. 77. 715. 715. 42. 42. 78. 78. mooy numéro papa waaw. waaw mooy numéro yi nga xamante ne yaa ñoom am na orange orange am na Wave am na orange money. waaw ñaari numéro yëpp waaw. di leen sant di leen gërëm rek. sant nag yéen nag yéen a mënuñu leen fay ko yàlla mi dara teewul nag yàlla na leen yàlla fay li ngeen dugg yàlla na ngeen ci am ndam yàlla na ngeen ci am ndam bu baax jërëjëf yéen a yéen ay mm-hmm. premier donneur yi. yéen ay premier donneur yi yéen. yal na yàlla fay taxawu. jàppale leen lépp lu ngeen bëgg yàlla